ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mo nangul ñu mboolem jaamu giñ ci def ñoo ngi nuyu ak di ziyaare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko ci sunu kanam te may ko fan wu gudd ak wér ba mu mboolem naalam yi ñu ànd koog moom mbokk yi jullit yi tey dañoo delsi ci dénkaane sëriñ bi radiallahu taala anhu ndax njëriñal mbindeef yi rekk la te bari na lum dénkaane lool te saa su dénkaane dafa bëgg la muy dénkaane ñor gum ko ñor moo tax mu ko doon dénkaane ak bëgg ñu bàyyi ko xel te jii nag ñu tànn ci boo xamante ni ma ngi ko tàmbulee ci allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa saxbihi salaatan wa salaaman wa barakatan tajcalu biha hadihi alwasiyata munawiratan li qulubi man taallaqu bina man taallaqu binaadimiha wa tuusiluhum biha ilayka ya alimu ya xakimu ya xabiru amin ya rabbal alamin mu ne ginnaaw buñ julee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant borom bi tabaraka wa taala mi ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu def dénkaane bi mu def ko luy leeral xol yi ñi aju ci moom ba noppi itam buñ ca tënkoo ci dénkaane bi mu nekk loo xam ne day leen di jokkale bañ mën a yegg ci yàlla tabaraka wa taala kon dénkaane boobu lu ko ñor la waaye lu amal njëriñ la mbokki jullit yépp rawatina mbokki taalibe yi ndax luy leeral xol di dimbule nit ki itam ba mën a yegg ci yàlla lu mat a bàyyi xel la mu tàmbuleekoon ci haakum wasiyatan taduumu naafian kulla saqaain wa gururin daafian mu ne lii ab dénkaane la buy jariñ ku ko topp te day jañal ku ko topp it te xeedi ak gépp waru mu mel ne dañ koo wax ne ko lu tax mu mën a jariñ mu mën a jariñ indil njariñ ki ko topp di ko jañal bépp texee di ak waru mu ne li kawniha min al rabbaniya wal mawaahibi rahmaniya ngir ne mu ne dénkaane bii mi ngi jóge ci xam-xam yu kawe yi nga xamante ni xam-xam yu borom bi la tabaraka wa taala waaye mi ngi jóge itam mayam yu yu bari yi nga xamante ni yërmandeem ju tasaaroo ji rek moo tax mu baaxe ko mbindeef yi biir dénkaane boobu nag mu dénk ci juróom-ñetti mbir ba ci njëkk mu ne istanibu akla alxaraami yaa mala falam yazal an il huda mukabbila na ngeen di moytandikoo lekk lu araam yéen mbooloom jullit ñi ndax mu ne lekk lu araam dafay jéng nit ki ba bëggoon def ak njub wala mu koy wax sax du ko man luy dox diggante nit ki nag ak wax ak njub ak jëf ak njub nag loole amul solo te sëriñ bi nee na lekk lu araam dana dox diggante nit ki <clears throat> dana ko jéng ba bu bëggee am ak njub du ko mën a am mu mel ne dañ koo laaj ne ko lekk lu araam mooy lan mu ne huwa aklu maa lam yakun kasba yaminik mooy nga lekk loo xamante ni fàgguwoo ko liggéeyoo ko bam mu lew la walam yatika hadiyatan aw sadaqatan aw istiraa mooy loo xamante ni tam liggéeyoo ko bam lew la waaye kenn mayu ko jox la ko hadiya kenn saraxu saraxu ko te itam jëndoo ko ci kenn ci alal ju la kon lépp loo xamante ni yaa ngi koy dunde te jëlewoo ko ci sa ñakku bopp kenn joxula la ko hadiya kenn saraxulu ko saraxu ko te jëndoo ko ci kenn nee na loola ku koy dunde yaa ngay dunde ci alal ju araam waaye mu ne nag bokk na ci misaal yi alal ju araam lu mel ne ngay dunde luñ sàcc lu ñu sàcc wala luñ këf wala ngay laaj nit ñi di leen sarxu ñu lay jox te amoo aajo ju ko far ju ko jar neena na ñett yooyu yëpp bokk na ci lekk lu araam sàcc kooku kenn welantewu ko ak këf alal joo moomut waaye itam nag laaj alal wala di ñaan alal joo xamante ni ak di ko yalwaanoog sarxu te yàlla tegula la ko yëggoo ci cëslaay ba mënoo koo ñàkk a def waaye dangay laaj ngir laaj rek loolu la wax amul solo te mu ne nag te bëgg a defar àllaa xilaam doo dundelu lu wala lu lënte ku bëgg a defar àllaaxiraam te loolu ñun ñëpp la ñor yàlla nañu ko yàlla defal mu ne ku bëgg a defar àllaaxiraam doo dunde lu araam doo dunde itam lu lënte fa inna man akala xaraaman nasaa anhu fi'lul xaraam kuy dunde lu araam doo mën a jëf lu dul lu araam wa man akala subhatan nasaa anhu fi'lu subhatin kuy dunde lu lënt te mooy loo xam ne xamoo dafa araam wala dafa dagan ku koy dunde itam doo mën a def lu dul lu lënte mu teg ca loo xam ne itam mën naa bàyyi xel nee na kuy dundeelu lu araam bu bëggoon a topp yàlla sax du ko man xatta inna aakila alxaraami law araada an yutia allaha tabaraka wa taala lama qadara ala dalik kon loolu mooy dénkaane bu njëkk mi ngi xiirtal ci ñuy dunde lew tey mooy tandiku lu araam dénkaanem ñaare ba mu ne faltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa nee na ngeen di sàkk lu lew waxtu wu nekk ndax nee na boo dee dunde lu lew ci ngay mën a amee ak njub te loola itam moo lay dimbale ci topp yàlla tabaraka wa taala ndax dunde lu lew ak sàkk lu lew sàkk lu lew di liggéey ba am lu lew buñ ko beroon moom rek rek ak jaamu yàlla la gu beraloo su fekkee nit ki mu ngi koy def ngir jëm yàlla nit ki su dee liggéey ngir am lu lew lu mu dunde dundal ci ak njabootam loole rek bu ko defee ngir jëm yàlla jaamu yàlla gu beru la ndax ak njub ak topp kenn du leen séentu ñoom ñaar yooyu lu dul ginnaaw bu nit ka dee dunde lu lew te sax moo tax nit ñu baax ñépp dañuy njëkk a digle nga fàgg lu lew ba am ko bala ngay jóg sax di jaamu yàlla ndax loole boo amee lu lew moo lay dimbale ci topp yàlla te boo jaamoo yàlla itam bu neexee yàlla mu nangu ko mu teg ca moom sëriñ bi nag ne soo demee ba am lu lew kat bu ko yàq na ko sakkandal ndaxte lu jafe la ci jamono ji kon loolu mooy ñaareelu dénkaane bi ginnaaw bi mu ñu teree ñuy lekk lu araam daf ñoo digal ñuy dunde lu lew ak di liggéey ngir am lu ñetteel ba mu ne walaazimu rafdo alladi laa yanfaw wa baadiru linnafi xaysu yaqaw nangeen di taqoog bañ lépp loo xamante ni amul njariñ ñu ne ko lu amul njariñ luy misaal mi mu ne kal maasi wallaxa lu mel ne ay moy yàlla ak i caaxaan nee na loolu nangeen koy bañ ndax amul njariñ ak mooy yàlla ak i caaxaan waaye na ngeen di dëgmal tey dem ci lu am njariñ nag ñu ne ko lu am njariñ mooy lan mu ne maa fihi nafun dunyawi aw uxrawi loo xam ne boo ko xoolee gis ca njariñal àdduna lu lu diine nangu wala njariñal àllaaxira loola am na njariñ kon nee nañuy bañ lépp loo xam ne amul njariñ tey dëgmal lépp loo xam ne am na njariñ ndax mu ne ay caaxaan day xëcc kay taqoo ki caaxaan jëm jëme ko ci lu koy lor tey te gaawantu nag waxtu wu nekk jëm ci lu am njariñ day dimbale nit ki bëgg gi soobu bëgg a yegg ci yàlla loolu da koy dimbale ci aw yoonam mu mel na nag daf ñoo wax am na nee na am na yoo xamante nii day bu ko nit ñuy jàppee njariñ itam amul njariñ nee na li amul njariñ bokk na ca nga ngay wax ci saw làmmiñ loo xamante nii dikrullahi muy tudd yàlla nekku ca wala lu méngoog tudd yàlla kon dafa bëgg nit ki bu dee wax muy wax loo xam ne dikrullahi tudd yàllaa nga ca wala lu méngoog moom tudd yàlla nag la ci jiitu mooy alquran ak jàng xasida yi nit ñu baax ñi ak wax wax joo xamante ni njariñal àddunaa ngi ci wala njariñal àllaaxira te njariñ loole sariya nangu ko bokk na ci la amul njariñ itam nee na di wiir wiir fu nekk nga xool ko te amoo aajo joo xamante ni moo la ca puus wala ngay lekk te xiifoo wala ngay tukki te amoo njariñ wala loo xamante ni moo la ci ngay tukki kon ñetteelu dénkaane bi sëriñ bi wax ne lépp loo xam ne amul njariñ nañ koy bañ te bañ a taqoog moom lépp lu am njariñ itam ñu koy dëgmal mu waxoon nañu bokk na ci la amul njariñ ngay wax wax joo xamante ni tudd yàlla nekku ca ak lu mingook tudd yàlla ak di xool loo xamante ni amoo aajo ju far ju tax nga koy xool ak di lekk te xiifoo ak di tukki te amoo sabab su jar ngay tukki ak di yëngutu sax te gisuñ benn njariñ buy waral ngay yëngutu ak bëgg àddunay kese bëgg àddunay kese nee yooyu yëpp benn amu ci njariñ nañ koy moytandiku mu ne nañ dëgmal ci lu am njariñ ca la ca jiitu nag mooy assalawaatul xams te mooy julli juróom lu am njariñ la nee na nañ ko dëgmal te fonk ak di saxoo di naafila di koor koor a ngàtt nga te di ko def ngir jëm yàlla ñeenteelu dénkaane ba mu ne walaazimul ilma walaazimul amal bila ixtiraarin wal tufaariqul malal na ngeen di sàkk euh, taqoog sàkku xam-xam ak di jëfe xam-xam tey bañ a waru te bàyyi tàyyeel ak yokkat ndax mu ne xam-xam day ku bëgg a jaamu yàlla te jaamu nga wér da jiital xam-xamu diine bu wér te tàyyeel yitam la koy indi tàyyeel gi ma leen di moytandikuloo la koy indi mooy boo dee dundeelu lu araam da ngay ba doo mën a jaamu yàlla waaye itam soo yenee sa bopp ci ak jaamu yàlla loo àttanut itam dana taxal tax ngay tàyyeel ci jaamu yàlla te nit ki bu dee tàmbali lu baax mu ndaw mu continuer ca moo gën mu bari ba noppi itam te wéy wéy wéyalewu ko bokk na ci waru googu mu ñuy moytandikuloo mooy ngay sàkku xam-xam ba ar am xam-xam bu bari te nangu woo koo jëfe nee na loolee ak waru lay doon xam-xam ku ko am rawatina xam-xamu diine jëfe ko ngoy def ci jaamu yàlla waaye soo baree xam-xam te woo jëfe na ne loolu bokk na ci buntab waru seytaane da ciy war nit ñi ak fuñ dee waaraate ngay waaru rek ak di fottasu te doo jëfee doo jaamu yàlla nee na loolu itam xeetu waru la bokk waaye nee na bokk na ca waaru ci waru itam di daanu ay jëll te du tax te du tax nga jëfee lay waral ngay daanu lañ la wax ba ngay daanu da nga ne ko ñukk te fu ñu waxee nga jug daanu nee na xeet yi yépp seytaane da ciy war nit ki mu yaakaar ne mi ngi ci lu baax te fekk na lam nekk baaxut ñeenteelu wala juróomeelu dénkaane bi mu ne wala tabaagadu wala taxasadu wa fi lladi yunmil huda taadadu wala tanaazau fa inna dunya taalibuha laysa yarum mu sanya bu leen bañante bu leen añaanante te lépp loo xamante ni dañ koy askanale ci ak njub na ngeen cay jàppalante te bu leen xëccoo ngir àdduna rek ndax kuy xëccoo àdduna yi kese kese nee na jëfam du baax bañ jullit nag mooy nga bañ ko te gisoo mu def loo xam ne sariya daf la digal nga bañ ko ngir loola añaan nag mooy nga fekk sa mbokkam jullit mu baax mu yàlla jox ak xéewal nga bëgg xéewal googe deñ ñàkk dimbalante itam ci lu baax ak ñàpp ñàkk jàppalante xeet yi yépp day tax ñu yiir jaam bi digganteem ak boroomam ba yërmande yàlla du yegg ci moom xëccoo ngir mbiram àdduna yi kese itam day yàq jëfi àllaaxira te képp koo xamante ni jëf na lu baax ci àdduna ba nekk lu jëf ju baax ba noppi mënu koo jariñoo ca àllaaxira loola wala yaasu billaahi baaxut juróom-benneelu mbir ma mu ne ca denkaane be mu ne walaazimoo tilaawatal quraani li wajhi man naaja bila misaani jàng alquran ngir jëmmi yàlla ma nga xamante ni moo daan deeyaalenteeg jaamam ba di xaritam ba di soppem ba di ko jox ci ay tuyaaba lo ka sopp nee na bokk na ca la ma leen digal ci ngeen taqoog moom ndax nee na jàng alquran day def ki koy jàng te di ko jàng ngir jëmmi yàlla te di ko settantal jàng mu muy jàng alquran day dox digganteem ak noonu yàlla yi alquran moo ko wax wa ida qara'ta alqurana ja'alna baynaka wa bayna alladina laa yuminuuna bil axirati xijaaban mastura moo tax sëriñ bi feneen mu wax ne kuy jàng alquran am nga kóolute ci bépp loraange nee na loolu man sëriñ bi dama ko wax te ànd ca xel mu dal ak xel mu dal ak xol bu xamante ni bu nangu loolu may wax la man qara al qurana min adan amin qad qultu daawal qalbu minni mutmain moo taxoon nag fonk gi mu fonkoon alquran taxaw na digal na taalibe bu nekk muy saxal di jàng alquran kullu muridin bi yaloodu fal yudim li xayri dikrin xadrosim kon loolu itam ñu koy bàyyi xel di takkoo alquran bët bu set ñu jukki ca jàng ko te def ko ngir jëm yàlla juróom-ñaareel ba mu ne na ngeen takkook bu ngeen dee jëf wala ngeen di wax nangeen seet la borom bit tànn ta muy lu baax digal leen ko ngeen jël loole jëfandikoo ndax ndaxte na ne loola aw rek rekk moo ca ne walaazimoo fil fi'li maxtaaral karim lakum fa fii maxtaarahu xayrun yaduum ndax nee na képp koo xam ne jeng na jëm ca la xam ne borom bi tànn ko te nee na na ko wóor ne la àndal booba lépp lum mu jëf wala mu wax ko na ko wóor ko ci wéttali mooy seytaane te saytaane nag ànd moom amul solo moo tax mu ne wa kullu man maala lima lam yuxtara lahu la dal baaqi alladi maa kaddara saaxabahu saytaanu fi kulli layaad fattabiu amra murabbin dijtihaad na ngeen ni topp ndigalal ab yarekat boo xamante ni boroomuk farlu la mu teg ca bayit woo xamante ni nag mi ngi ko jëmale ci mbokkam taalibe moo xamante ni dafa soobu dem cib sëriñ jébbal ko boppam nee na ku bu muy yàkkamte ndax su yàkkamtee ba wàcce boppam wala mu cëppeel boppam te amul ngërëmam ngërëm cib sëriñam nee na lam koy jural mooy gàcce fa kullu man fatama nafsahu bila idnin min assayqi almurabbi xajla waaye nag mu ne sëriñ boobee muy wax nag du sëriñ sépp waaye sëriñ soo xam ba nga xamante nii nag dafay tënku ci sunnas yonent bi alayhi salaatu tax muy wax ka nga xamante ni bu fa yonent bi alayhi salaatu tegoon tànkam fa jéem a teg ak tànkam di coroy sëriñ boobaa tax muy wax ne soo ko xasee jébbal sa bopp bul yàkkamti bul cëppeel sa bopp bul wàcce sa bopp toog fa bañ a yàkkamti ba am ngërëmam nee na loolee la ñuy digal ndaxte nee na soo yàkkamtee ba cëppeel sa bopp wala nga wàcce sa bopp nee na gàcce rek la lay indil fa sayqu mu ne walaazimu suyuuxa fi l qurbi wa fi al bondi bi imtisaali ma minhum yafi fa sayqu laa yuxaalifu l musafaa fa man naxa ridal murabbin tafaa salaatu man jaala xayra mursali safiana ala imaami rusuli kon ci jeexital ji dañuy tënk dénkaane boobu la ca jiitu mooy bàyyi lekk lu araam wala loo xam ne dafa lënt bu ñaareel ba mi ngi ñuy digal ñuy sàkku alal ju lew bu ñetteel ba mi ngi bàyyi lu mi ngi ñuy bàyyiloo lu amul njariñ ci ay wax wala ay jëf ñeenteel ba nañuy taqoo xam-xam ak jëfe ko te bañ a waru juróomeel ba bàyyi bañante ak añaanante ak xaccoo àddinay kese juróom-benneel ba mooy ñuy takkook jàng alquran te di ko def ngir jëmmi yàlla juróom-ñaareel ba ñuy takkook jëfi lanu yàlla tànnal ñu jëfe ko ndax loolaay li baax ci nun juróom-ñetteel ba te moo ca mujj mooy ñuy takkook su sëriñ si jub si tey jubal ña leen topp sëriñ si jub si tey jubal ña leen topp kon ñoo ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu tënk ñu ci ndigal yi di ñaan yàlla sunu borom mu yàggal fi sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale naa la mi tañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala